Euh, liggéey bi comme ni ñu ko waxee woon rek ci communiqué bi liggéey la boo xam ne li ko waral mooy fan yële ci ginnaaw gis nañ ni inondation bi dafa dugg ci biir euh, amoon benn plan boo xam ni service d'hygiène def mu jëm ci wàllu euh, fexe ba li nga xam ni mooy liggéeyu service d'hygiène ci wàllu mbënn moomu ñu matale ko ni mu waree xaajoon ko ci ay pàcc nag léegi nag ñu nekk ci pàcc bi nga xam ni mooy pàcc bu mujj bi muy pàcc bi nga xam ni dañoo war a dem fi nga xam ni. mooy site yi nga xam ne dafa inondé pour def fa li nuy wax opération de pulvérisation aérienne ñu koy wax sa saupoudrage euh, nga xam ni opération la boo xam ni liñ ci jublu mooy fexe ba faagaagal doomu jàngoro yi nga xam ni mën na bàyyi ko ci mbënn moom mhm. waaw ku ni opération di nga wax ni di nga soxla ay ay ay ay logistique muy oto loolu gis nañ ni yemb na mi ngi fi euh, personnel bi tamit mi ngi fi li nga xam ni moo jëm ci wàllu produit yi tamit daanaka euh, état bi def na ci lu am solo jaarale ko ci gouverneur mu jaar ci préfet ba yegg si ci sous préfet ba yegg si ci ñun euh, service bi nga xam ni moom mooy sunu service di service di jeune nga xam ni colonel Maodo Malick Diop moo ko jiitee tamit euh, def nañ ci apport bu am solo ci wàllu produit yi waaw donc mën na noo wax ni daal fi mu ne nii lépp yemb na pour ñu mën a def activité bi ni mu waree. pompe boobu tamit euh, ginnaaw pompe bi li ñuy wax rek mooy soññ askan wi ci ñu jël ay matuwaay matuwaay yi du dara lu dul jéem a sàmmonteeg cet gi nga xam ni e, saa su ne agent yi ñu ngi dem ci kër yi di waxtaan ak ñoom di leen xamal nan la ñu war a def ba sàmmonteeg cet gi nga xam ne buñ ko sàmmoontee lenn loo xam ni mën na indi gàllankoor ci seen wàllu wér gu yaram du am donc ñu ngi leen di ñaan daal kenn ku ci ne mu respecté Euh, maanaam message yi nga xam ni agent yi ñu ngi koy jàllale message yi nga xam ni ñu ngi koy jàllale ci rajo yi ngir ñu sàmmonteeg cat gi nga xam ni moo war bu inondation amee waaw lii moom tàmbali la rek tàmbali la euh, ñu jël euh, ay gox tàmbali fa waaye fas yéene nañu jéem a dajal mu daj dëkk bi yëpp daj ci wàllu Euh, opération yi. opération yi ñaata fan ñaata heure lay waaw opération yi bu tey bii tey dina tàmbali tey mën na dem ba ay trois heures quatre heures du matin tout dépend ci euh, sites yi rek ak yaa tolluwaay yi nga xam ni sites yi ñu war a def opération yi toll nañ ko. waaw liggéey bi euh, nin ko coordonné du dara nu bi mbënd mi amee li nu njëkk a def mooy danoo am ñun li ñuy tuddee plan d'action muy loo xam ne dañ ko xaatim Euh, mu am ay tomb yoo xam ni mooy wane ñun sunu liggéey ci mbënn mi nan la ñu war a def ba euh, def ko loolu tam ni ma waxe woon rek li ci jiitu mooy euh, sensibilisation population yi nga xam ni mbënn mi daf leen a laal dem ci ñoom waxtaan ak ñoom ngir ñu mën a sàmmonteeg li ci des mooy opération yi opération yi tamit dafay jar euh, lu mel ni autorité administrative yi lu mel ni autorité yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci mairie bi lu mel ni autorité yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci ministère yi kenn ku ci nekk jàpp ci donc liggéey bi daanaka mën nañu wax ni kenn ku nekk jàpp na ci ngir ñu mën koo matal